Merci Amadou. Déjà que même avant le démarrage de l'émission, euh, il euh, y avait cette ambiance bon enfant, joviale. Et je pense que c'est cette ambiance-là qu'on va connaître. C'est toujours comme ça. Voilà, c'est peut-être euh, ce qu'il faut rectifier. Dire que les Sénégalais ne le connaissent pas, c'est une erreur. Ils ne le connaissent pas d'une certaine manière, avec un certain discours. Vous comprenez Parce qu'on en est arrivé, nous avons moment au Sénégal, malheureusement, si vous hmm. nekkal waxkatu njombe nekkal defkatu toj-toj nekkal presque un irresponsable am na ñu ko siw jaral chaque jour ñu génn jouer au guignol jouer au fanfaron monsieur ñëpp dañu xam ne la diplomatie ne se fait pas dans la rue depuis 2010 ce que je vous dis vous êtes des journalistes IPS Institut panafricain de stratégie paix sécurité et développement le teg di ci liggéey amul coow lu am ci Afrique te demu ci bokk ci ñi koy négocier pour jàmm dellu si fa ba sommet yii mu bi mujjee am au BRICS en à Johannesburg en Afrique du Sud dem na fa jël fa parole moo loolu ci boppam dafa demoon ba nekkoon handicap dans son parti quelque koo xam ni doonul toog presque un mois quinze jours au Sénégal ndax il a fait le tour du monde à travailler pour la paix pour la sécurité maintenant nag li gën a motiver sa candidature loolu da cee bokk parce que yeneen yi ñi ko xam ànd ak moom dañ ne ko mais yow Cheikh Tidiane Gadio ba Côte d'Ivoire amee problème da ngaa dem liggéey fa ngir jàmm dellu si fa Afrique fu ci am problème mais problème yooyu ñu jàppewoon ni épargne na Sénégal gis nañ ni dox nañ ba dugg Sénégal kon yow dafa jot la nga di defal Afrique nga gën koo mun a defal sa réew. vous comprenez ci cadre boobu ci la déclarer sa candidature maintenant. je peux être d'accord avec toi que tu ne sois pas d'accord sur une manière peut-être yow da nga bëggoon mu ñëw dóor sur la table ce que tu as trouvé ce que tu as trouvé modéré non non ce que tu as trouvé modéré mais pour moi dire au président Macky Sall que tu ne dois pas faire un troisième mandat il l'a dit et il l'a dit clairement quelque part même il l'a dit mon frère parce que c'est son frère il n'est pas son ennemi mon frère Macky Sall je le pour qu'il pas le Sénégal dans ce que tout à l'heure vous disiez mm-hmm. euh, en, en, en Guinée Alpha Condé voulant faire un troisième mandat gis nañ ni mu ko jural Ablaye Wade voulant faire un troisième mandat gis nañ ni ñu ko jural Nelson Mandela il est resté une figure historique parce que dafa def deux mandats dem. benn mandat benn mandat mu dem gis nga syndrome yooyu la doon bañal parce que Ablaye wadd amaana su defuloon maladresse su troisième mandat il serait aujourd'hui un deuxième Mandela pour mm-hmm. l'Afrique. loolu la docteur ñëw posé ko maintenant teg programme programme boobu noonu du lu mu inventé ci loolu lay liggéey. d'accord mais mais mais lu ma la laaj si si loolu par rapport ak lu ngay wax ni moom est-ce que le fait que Cheikh Tidiane gaajo Euh, poser problème yi déplacer ko peut-être curseur bi si le plan africain di wax Afrique euh, gouvernance bon il faut démocratie est-ce que loolu du dépayser lu nga xamante ne moom mooy politique bi au lieu de mu wax si parce que a tas de problèmes bu fekkee da nekk bëgg a président nga déplacer affaire di wax Afrique euh, Niger Burkina Faso est-ce que loolu du du def nekkul da ngay déplacer débat bi ko feneen au détriment lu nga xamante ne moom moo xew Sénégal est-ce que y a risque là. avec toi je ne dis pas que je suis d'accord je peux d'accord avec toi parce que au sein même de son parti y en qui lui disent ça qui lui font cette reproche parce que malheureusement il, est, il parle beaucoup plus de l'Afrique que le, adossé il est adossé sur des convictions panafricaines ouais. vous comprenez mm -hmm. et on rien au monde ne fera faire qu'il renie son panafricanisme parce qu'il il a grandi dans ça mhm. te bu ñu bëggee développer Afrique war na ñoo xam ni nos micros états là nos chevauchées individuelles là ne nous mèneront nulle part moi je ne regarde pas le burkinabé comme un étranger man su ma toogee Sénégal ñu ne ñu au Burkina cinquante personnes dee nañ fa wala Mali cinquante personnes dee nañ fa ma mel ni yëguma ko te man ma xam le grand empire du Mandé xam ni man kii suis sur sa plateau mango bi ma sant samay origine amaana beneen réew la muy Guinée Bissau tey bu ñu doon wax sénégalais yi ku ci nekk dellul fa say maam cosaanoo boo xoolee sa benn maam sa ñetteelu maam parce que Afrique benn la mhm. par tubaab bi moo fi ñëw tegal ñu ay frontières man je ne par pas le malien comme un étranger ba su Mali di tàq ma ne sama yoon nekku ci je ne regarde pas l'ivoirien comme un étranger loolu noonu pas passion boobu mu am pour l'Afrique le Sénégalais yi ñenn ñi di ko reprocher man mii bokk naa ci ñi ko reprocher mais dama gëm ni l' avenir de l' Afrique c' pas des chevauchées individuelles. c' est pas nos micro états c' pas des ligues vous comprenez. loolu noonu je pense que bu ñu ko xësee ba comprendre. te fi Afrique tollu tey boo jëlee position Sénégal l' plan du Sénégal yëpp Mali tàkk na Niger tàkk na Burkina tàkk na ñun Sénégal ñoo ci des loolu noonu la ñuy ñaan yàlla ki nga xam ni moom. maanaam jàmm jee bëri ba ñenn ñi di ko mere. Mm-hmm. am na ñoo xam ne maanaam su doon wax discours guerrier boo yu bëri faa ko ci mais moom le fait que muy waxee jàmm ñu ne ko fi ma fi ma bëgg ñëw ak yow